waaw maa ngi gars yi maa ngi jéggalu bu baax dafa dagg euh, te fi ma ne woon réseau bi daf ma xaw a sonal tuuti baaxul woon ndax fi ma placé woon waaye pour ñëwaat rek leeral tuuti ci li nga xam ne moom la Mansour Faye ak bandi gouvernement Macky Sall bi di waajal gisoon nañu liñ li fi xewoon ak jaaykatu karo yi gis fii li nga xam ne aussi moom moo fi xewoon ak jaaykatu plastique yi mbuus yi ba léegi ñu ngi jaay ay plastique Sénégal ñoom dañuy tànn seeni ay nit fi mu toll nii pono ponovena yooyu ngeen di dégg ñuy waaj a terewaat ci biir Sénégal li ñuy waajal mooy ñu tere ko néew ji doole ji ak pono yooyu ñu indi yëpp yor ko ci biir Sénégal dootuñ ko mën a jaay bu boobaa ñoom ñu indi seeni ay marchand seeni ay tappalekat ñu jaay ñoom seeni ay pono ba léegi il faut ñu xamné que ay bandi lañ ko sékkal ay samba boy ay délinquant ay nit yo xamné ils ne sont pas dignes du nom waaye nak li wax la rek ñu mbéjum kanam borom mo koy fajal bopam ah. sénégalais ñun ñëpp partager même responsabilité il faut que xam nous partageons la même responsabilité bo nango Macky jaay doolé pas dara nga nangu may Macky Sall jaay doole jaaykatu karo yi waxuloo dara mu jaay doole jaaykatu mbuus yi waxuloo dara mu jaay doole marchand ambulant yi di taal marché yi waxuloo dara tey lan lay attaqué chauffeur yi Macky Sall ci la jëm xam nga responsabilité la responsabilité et partagée bu ci kenn profito chauffeurs yi am nañ ci part de responsabilité les citoyens sénégalais am nañ ci part de responsabilité responsabilité bi gën a mag nag ci nguuru Macky Sall gi la jóge muy le ministre du transport et des infrastructures ñaari bus ci pays bu normal naka la mën a dawee ci autoroute boo xam ne ñaari ligne kese la benn ligne dem nii benn ligne ñëwee na le bu ñu rombantee da ngay dégg sax ngelaw bi vif yow da ngay sax ci sa biir xel ne mantalement ñaari yi laalante nañu kan lañu yàpp lan moo tax Macky Sall ak mbokkam yi ak nitam yi respecte wuñ sénégalais yi pourquoi les sénégalais acceptent le manque de respect que Macky Sall et sa famille nu donnent chaque jour xam nga yéen li ñuy wax nguur guy daanu Macky Sall xel bi du dox moom nanguwul ci biir xelam ne sénégalais yi dañ ko wëccu makki Sall bu janoo kaaba gi sax sénégalais dañ koy saaga ndey imaginel nit janoo kaaba nga koy saaga ndey loolu mooy jéppi na la Macky Sall au même moment demal nga def à l'envers nga xool Ousmane Sonko Ousmane Sonko bu wekkee sax sénégalais yëpp def ko challenge bu indee ñaari soxna sax gis nga sénégalais ni mu fiiree ci affaire polygamie mais acceptel nañ ko président Ousmane sonk tellement que mi ngi ci biir xol yi arrêté leen seen caaxaan yi manul jël leen réew mi ngeen delloo ko nit ñi ñaawteef baa ngi gën a yokku nit ñaa ngi gën a ñàkk seen bakkan Sénégal a ngi gën a metti nit ñaa ngi gën a dee xalaat leen ngeen ragal yàlla xalaat leen guddi bu njëkk bu bàmmeel xalaat leen seen dee xalaat leen ne bakkan bu ñam dund dina ñam dee xalaat leen ne ku dund ci àdduna bii di nga dee respecté leen sénégalais yi ngeen respecté ñu respectez les sénégalais Sakoro romingini ni def bu ne weng Diouf barki dem Ndiaye bi ay xalé fi lan la wax bi yëpp a na démissionné Diouf Sar na démissionné ana Diouf Sar il est parti et tu sais que Diouf Sar li dee ci veyam ci dix pour cent ci ci ci ci Mansour dix pour

waaye Macky Sall respecté wul Sénégalais barki Dembo Ndiaye yéen a ngi jàngal population boo xam ne soixante quinze à quatre vingt pour cent de la population sénégalaise à moins de vingt cinq ans ngeen leen di jàngal taal am na stade bu tàkk démb rek am na stade bu tàkk de stade boo xam ne gazon sentetique yooyu ngeen fa def gone yi ay pono la ñu jël xaw ma gone la xaw ma ay mag jël nañu ay pono wërale ko taal ko. Yanatta jangal ta jàngal sénégalais worale ay pono ci ay kër di ko taal gatsa gatsa la ñu wax de loo leen jàngal gars rek préparer len ko dox ngeen ñu ay xalaat yu bex ak pexé yu pexé yu de buma don doon yow maki nga démissioner jël réew mi delloo ko sénégalais te nga démissioner gis nga fi ngay mujjeeg sénégalais yi ñax du fa sax de waaye nag xëy na yow sa xel mayu la loolu temps yi ñu ngi dégg ñun dañuy déggantu rek dañuy jékki-jékki ñu ne ñoom procès lañ jëm xaw ma ban procès nag ndax xam naa ne président Ousmane Sonko mi ngeen di waajal gis nga président Ousmane Sonko boo leen ko indi woon créer seen cinq mille vidéo indi ko soo moytuwul ñun challenge yi lañ koy def waa ji il est dans les cœurs bàyyi leen seen caaxaan baa bàyyi leen seen caaxaan yi te ngeen sérieux Sonko est dans les cœurs Macky sorti de kër Macky kaaba gi sax boo janoog moom dañ lay saaga ndey bàmmeelu yonent bi sax ban fa demee dañ laa saaga ndey xam nga loolu lu mu teg xam nga loolu lan la teg mooy doomu aadama boo xam ne fépp foo dem ay saaga ndey nga fay jële est-ce que yow mës ngaa calculer loolu lu muy teg Macky respectel Sénégalais yi te nga jox ñu cër te nga xam ne ñun pare nañ ci yow raxas nañu suñu loxo ci yow te Ousmane Sonko nag il est dans les kër lu ko neex na def guddi yi ñu toll moom moo xew Sonko ku mu mbéj sax dañ lay dolli lay mbéj tu n'es pas victime ku mu duma ñu duma la Sonko ku mu xool neexu ko sax ñun dañ koy saaga ku wax Sonko lu tolloog tarfatal ay ni sax dañuy dal sa kaw loolu mooy amour sans condition loolu yàllaa ko def ci suñu xol yi te ñun mënuñ ci dara Sonko da nga koy bëgg bañ sax doo am noo ko bañee ndax yàlla du la ko permettre Macky Sall le contraire da nga koy bëgg bëgg sax yàlla du la ko may Macky guddi yu bari ñëw na ndey ndeysaan ci sama biir xel bi ma naan ah kii nañ ko baal nañ ko baal tuuti nañ ko baal nañu wàññi déedéet mënuñu ko dama la ne billahi wallahi tallahi lazim laa lay watal continuel sa caaxaan sa résultat mi ngi ci kanam transporteurs yi nag bokk ngeen ci combat bi fi mu ne de bu yeboo ngeen xam ne reyante buy amati ci Sénégal ci kanam ngeen di jiitu bu dul loolu dootu leen transporter ndax boo jëlee tey transporteur ñu ne la yow cinquante place ngay def ci sa bus wala sa sa sa nga jël sa oto ñu ne la yow da ngay respecter norme Europe yi xam ngeen Europe gallon essence lu mu fii jar Europe benn litre essence daanaka cinq cent franc wala moins lay jar cinq cent franc CFA wala moins benn litre ah yéen foofu muy mille sept cent wala mille trois cent wala mille deux cent n'est-ce pas léegi ñun benn passager ci distance su diggante Dakar ak Vélingara par exemple laa xam mooy fi Kankan Moussa doon dem xam nga ñun Amérique bu dee Amérique ñaata ngay fayeeku passager bu ne mën nga koo ko presque cent mille francs fa cent mille wala au moins cinquante mille pour ne pas exagérer cinquante mille yooyu kenn mënu koo méngale loolu mooy indi surcharge bi ngeen di gis noonu ci bus yi lolou moy indi nga gis ndaysan gaay manu ñoo jënd pono bu bes ku fayé ku transport koku nu muy jëndé pono bu bes nakar bi ci gouvernement bi ak sen taxi accent ak sen tapalé yi ci la tàmbali chauffeur yi man damay sympathiser ak mu ñoma dañuy wuti dépense Mansour fay ay nagu 5 millions la yor domami dogu domu Mansour fay nag yi ñu yor ben nag bu cinq millions de francs CFA mënu koo jënd ba dix millions Mansour Faye li mu yor ci ay milliards ci li mu sàcc ci alalu Sénégal kenn xamul ni mu toll Mansour Faye soxlawul def transport en commun Macky Sall soxlawu ko Amadou Sall soxlawu ko Marème Faye Sall soxlawu ko di jël stratégie yi stratégie euh, maanaam tragédie yi am Sénégal di ko attaquer chauffeurs yi c'est pas acceptable je sympathise avec les chauffeurs d'accord am na yu bari yoo xam ne war nañ koo mën a jubbantiwaat am na luwaa yu bari yoo xam ne war nañ koo teg waaye luwaa yi la ca mooy déjà ngeen wàññi essence bi ngeen dindi taxe bi ngeen di yokk ndax camion essence mënta jóge Sénégal dem ba Mali te Mali ñëw jëlee seen essence Sénégal transporté ko ba Mali mu gën a moins cher Mali que Sénégal loolu mooy seen problème mooy tax biisu Mali yi amul porte bagage te biisu Sénégal yi day am porte bagage te day am chaise bu nekk ci digg bi te loolu amul Mali parce que gouvernement Mali bi am na mande ci population gouvernement Sénégal amul yërmande ci population yan injustice bi ngeen njëkk def mooy di jàpp ay doomu aadama di leen tëj ci kaso bi ci ay fen article quatre vingt président bu créel boppam article ndax saaga nañ ko ndey ba tuun gi xonk Macky Sall saaga nañ ko ay ndey daggal ko ay ndey ba mu sonn mu créé loi mu ne képp ku ma saaga dama lay tëj loolu génnew la ci de sëñ bi da génn ci xol yi tu es sorti des cœurs tu n'existes plus dans nos cœurs sénégalais yi mënatuñu laa digérer ki la gën a ñàkk mën a digérer mooy sa cousine demal nga xool sa cousine bi li mu wax ci yow wala sa kër li ñuy wax ci yow Macky ñi la gën mooy ñi la wër ma wax la ko léegi yow tes ennemis numéro un c'est ton entourage dama ne respecté leen doomu aadama yi ngeen respecté ñu respecté leen ñu respecté leen sénégalais yi sénégalais yi sonn nañu Macky sénégalais yi dee nañu fàtt nañu sénégalais yi amul souffrance bu ñu dul souffrir sénégalais yi amul coono bu ñu dul sonn ci àdduna bi i avec ça tu veux nous dire que yow yow Sénégal da ko bëgg a gérer une gouvernance sobre et vertueuse comme ni nga une gouvernance voleuse et mensongère nga ñu indil gouvernance menteuse gouvernance manipulateuse Maki. Ragalali yalla, yalla Bugul ay tapale, yalla bëggul ay fen sos te Macky tooñ nga sénégalais yi toroxal nga sénégalais yi sonal nga sénégalais yi fàtta nga ñu yow doxuloo ci dëgg xam nga ne doxuloo ci dëgg ndax boo doon dox ci dëgg tu serais le premier président nga won ñu d'abord dëgg xam nga dañ ko ñëw woonee dëgg mooy nga limoger Mansour fay tey nga limogé ko ne ko Mansour mu ne la waaw amuloo compétence amuloo xam-xam mënuloo gérer suñu transport mënuloo gérer suñu infrastructure mënul nekk waaye da nga fa indi Mansour Faye rek pour bu luubale alal ji yow nga mën cee am sa pourcentage Mansour fay ba mu luubale alalu ceeb bi mook sa doom amadu Sall ñoo ci ànd maki Amadou Sall sa taaw moom ak Mansour Faye ñoo luubalandoo xaalisu ceeb bi nga génnee ci moment sa problème dafa dépasser ay pene sa problème incompétence la avant tout Et après tout, tu es incompétent. Maki, tu ne peux même pas gérer un berger. Ouahatou euh, République. Il faut respecter les Sénégalais. dee nous nous nañu sonn nañu Macky suñuy doom dee nous fàtt nañu sonn Sénégal yëpp ay xalé la léegi yi ñu ci on a perdu combien de jeunes dans la mer lan nga def da nga arrêté bateau yi wala wala da nga lan da nga da nga da nga wat ay jeun ci suñu geej wala lan mo créer lolu ton incompétence Maki, c'est millions de jeunes qui ne travaillent pas au Sénégal ban safara nga ci indi yow ben safara rek nga gis ci problème Sénégal yi moy nga arrêté pono venant de France pono usé de amna fep maki ba ci suñu dëkk bi fi. use tire amna fep ci aduna bi amna amerique amna France amna fenen ak fenen ak fenen nga defe ne dëkk yi ñom pano yu bes rek lañuy jaay mais ñëpp attanuñu pano yu bes d'accord amna auto yo xamne nombre de personnes yi muy jël ak transport bi waruñu ko permettre muy am ye pneu yi yenn pano yi mais lolu loi la boy tek lolu bokoy def Macky <coughs> da ngay wañi douane bi pour ñi indi pono yi ñu mën a jaay pono yi ci njeg boo xam ne euh, gars yi dinañ ko mën a jënd transporteurs yi wàññi essence bi ba nga xam ne transporteurs yi du ñu yokk chaise yi ci biir oto yi Macky nga wàññi transport bi yow man nga ko mais lépp ci ay sàcc ngeen ko teg sa sa goro créé na ay bureau fictif am yoo xam ne fa la ñuy dem di passeloo oto yi ay inspection maanaam ay visite technique ñuy fay ay libanem, ay xaritam fi mu ne ni mbaadu da ngeen bëgg jox marché euh, pono yi ay libané encore comme ni ngeen koy défé bi yon kan ngeen koy jox Jamal ngeen koy jox wala ko leen koy jox da ngeen koy jox ay libané ha ah? marché pono yi da ngeen ko bëgg joxat libané yi parce que man lool la gis gis na ne Macky Sall ya ngi waxtaan ak ay libané ci suuf pour jox leen marché pono yi pour toroxal doomu sénégalais yi jaay pono warul démé noonu pono ñung koy jaay depuis 1960, neuf cent ñu ngi jaay use taaya accident bi am ni barki dem bo jaay maki du dara lu sa incompétence ak incompétence sa goro bobu nga tek au ministère du transport man de nee la man waxuma la man de man sama xam-xam dafa dépasser yoy waaye bo jëlone nit ko xamne nit ku am rek certificat d'études ak entrée en 6e nga tek ko ci ministre du transport rek ndeysaan un technocrate nit ku am xam-xamam ku compétent Macky mu ñëw tegal la système bu normal ci yoon système buy dox système booy xam ne sénégalais yi dinañ ko mën a njëriñoo système boo xam ne sénégalais yi dina ñu dinañu ñàkk maanaam ñu wàññi dee mais Macky dee nanu fàtt nanu sonal nga ñu gars yi maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen joxaat dig daje beneen yoon wa asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.